compartimenter la fiscalité euh, selon les secteurs par exemple am na secteur yoo xam ne euh, valeur ajoutée bi bari na mhm. euh, ñu gën a euh, dóor foofu pour mhm. mobiliser des recettes fiscales mais par exemple secteur yu mel ni éducation secteur yu mel ni santé secteur yu mel ni presse mhm. nga xam ne ce ne sont pas des secteurs à forte valeur ajoutée ñu ñu ñu defar ñu un impôt spécial est-ce que loolu Euh, mu euh, mën na moom est-ce que mën nañ ko tuddee iné inéquité. non non en fait xam nga état pour man lépp waxtaan la parce que état dafa am soxla parce que da ngeen am benn rôle bu ngeen di ci moom mooy euh, wàññi chômage bi yokk consommation bi yokk TVA bi c'est-à-dire que benn entreprise bu daanu perte mal pour état day perte impôt le bénéfice TVA impôt sur le Euh, état am na information entreprise secteur bu ci nekk li muy gagné le secteur de la presse traverse des moments difficiles. non c'est un secteur par essence non, déficitaire. non man man quand entendu euh, tey benn euh, journaliste mu ne endettement bi. RTS ak loolu c'est presque 33 milliards xaw ma 35. mais ñoom ñu ngi noppi ne xumu xumaaral <laughs> les médias publics là. <laughs> assiette bi ñun ñu nekk di wax ñuy taf suñu photo yi di ñu di ñu xas. les médias RTS am na 5 milliards Soleil deux milliards APS xaw ma ñaata la am. ñoom ñoo ci ëppale. léegi nag loolu. ça ça veut dire ñu ngi ne xumu xumaaral <laughs> noppi ñu vérifier ndax dinañ bloquer seen compte yi euh, comme ni ñu ko nekkee di def euh, avec les les les les privés. loolu aussi beneen paire de manches mais mais ça ça que ni bu dee am na lu ci état moom mu am déficit donc état am na information que ni donc modèle économique gu presse sénégalaise. modèle bi baaxul. modèle bi baaxul maintenant nag de deux choses l'une wa ilaa euh, da ngay xam ni modèle bi baaxul nga fexe ba modèle bi baax nga jàppale leen ba modèle bi baax pour man il faut vraiment redéfinir le modèle pour que entreprise yi euh, viable parce que Macky Sall lu mu lu def ci seen seen seen impo bi tamit c'est injuste. c'est comme si da ko dafa da ko. da koo tegoon épée épée de Damoclès seen seen bopp ba ba muy dem mu soog koo mu soog koo jéem a bàyyi pour man c'est pas comme ça la ñu war a traiter la presse. c'est comme si da ko tegoon épée de Damoclès xam na lu muy def lépp ba ba muy dem ba mu xam nga ni day dem mu bëgg mu bëgg yooyu baaxul pour man il faut moom politique sérieuse sur la presse parce que xëy na tamit y a tout et n'importe quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. am na yoo xamante ni quand même euh, presse bi il a il faut moom mu am gentleman agreement entre les journalistes et l' état en place mais état état bi du ndamam benn entreprise presse tombé en faillite du ndamu état entreprise presse yi di ko xalamal du ndamu état mu seetaan quelque part euh, journaliste di dund aussi ci yenn ci yenn kii pour man euh, waxtaan la mais aussi presse bi aussi du ndamam yenn sujet yoo xamante dafa dafa sensible trop ci réew ñu ci étalé wu du ndamam. Euh, cest à non parfois y a des yoo xamante ni pour man presse bi euh, war na ko war na ko war na ko jomb teg sur la place publique parfois ci comme. xanaa le le dernier débat euh, sur le général Kandé loolu ngay loolu ngay wax sama m'a choqué mais dama la dégg ci ci sa tribune boobu nga naan. Euh, le genre le monstre n'est pas vaincu yónni nañu des des politiques yónni nañu presse bi mais vous pensez que presse bi dañ koy yónni. mais oui non xam nga may mun a. pré presse dafa am ñoo xamante ni ils ont leurs moyens am lu ñuy doy presse ñoom day am ñoo xamante ni dañoo jàpp ni presse dafa am liggéey bu mu war a def mais am na ñoo xamante ni presse bi du seen business ah mën nañ ko moom mais bu daanoo tombé en faillite c'est pas leur problème ah cest à que xëy na fu ñu jëlee seen ressource parce que dañ naan am na ñoo presse bi mën na mën na leen servir quelque chose pour leneen. am ñoo xamante ne presque dañ koy dund dañ koy dañ ci liggéey mais am ñoo xam dañ koy utiliser pour pour quelque chose d'autre dañ naan toujours dañu perte dañu perte te duñu bàyyi xam nga li ñu naan ci kajoor ngaay neexul te ko ne wàcceel pir mu bañ